te ñu fas leen yéene andil xikma bu amate solo te mooy wéyale li ñu tàmbali woon fan yi ci alhimmatul aaliya mooy yitte ju kawe te yitte ju kawe nag kon xam ne ni mooy taxa am te fan yi yëpp ñu joxe ci ay misaal ci sëriñ bi waaye mag ñi ñi nga xam ñoo àndoon ak sëriñ bi itam yitte ju kawe jooji lañ am xon ba tax liñ am ci sëriñ Tuubaa lépp ñu am ko ñu am ko ci ñu andi ci misaalum kenn ci ñoom muy sëriñ Malick Basin si dafa misaaloon yitte dafa waxoon ne euh, ab wutkat maanaam ab wutkat ab murit yàlla lay wut ndax sëriñ Tuubaa loolu la jàngale wu isil muridu la yuridu abada xayra rida rahmani aysa qasada ab murit benn bëgg-bëgg la war a am muy sun borom tabaaraka wa taala muy àgg ci yàlla ab sëriñ benn bëgg-bëgg la war a am muy àggale ab taalibe ci yàlla waaw kon ni mu isil murabbi laa yuridu fil murid illa al wusula naajiyan min al marid moo tax sëriñ Malick Bassine dafa misaaloon eh, yàlla ak yonent bi ak ab sëriñ ak pasteef ak yitte daal li wax ne mu ngi mel ni ab teen mu ne yàlla mooy ndoxum teen ba moom la ñëpp soxla ku ne xam ne ne ku ku jëm ci teen ndox ngay wut kon yàlla la ñuy waaye nag mu ne lëmum teen bi nga loolu ñu tabax nga xam ne mooy lëm mi nee na mooy rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kon kuy jëm ci yàlla faaw nga jaare ci bi sallallahu alayhi wala doo dem goj bi mooy buum googu gi nga xam ne nii ci la ñuy takk baag yi indi ndox nee na goj boobu mooy sa wasila mooy sab sëriñ wa bu taxoo ilayhi la kon wasila ala kulli xaal mënta ñàkk ndax ab teen moom doo ñëw rek daal di tàbbi gis ndox ma rek mar dal di wuti ndox ma daal tàbbi ci biir déedéet waaye it teen bu amul teen bu amul ndox nga seen ndox ma itam faaw nga wuti goj kon wasila muy kilifa mënta ñàkk nee na baag yooyu ñuy takk ci goj bi nee na mooy paseefu taalibe bi kon kenn ku nekk nu say baag toll noonu la sa noonu sa pëstéef toll pëstéef yi kon dañoo ëppante moo tax baag yi ëppante boo demee ci terme dañ fay gis ko baag bu baag yu mag a mag gis fa ko yor baag yu daw nee na xëcc googu yi nag nga xam ne moom la taalibe bi moom la nit kii di gaaw di xëcc di baral ba amum ndox nee loolu mooy yitte kon yitte yu taalibe bi mooy di gaawtu ak farlu ak di di xëcc lu bari rek ba keroog mi bari ndox na loolu mooy yitte nga gis kon mag ñi li leen yitte yitteeloo yitteelee woon ak niñ ko daan misaale moo tax sëñ Bay Jaxate di wax ne ak um xel ndab laa ngi jàppal joxe ñu feesal dell ci yàlla sa yitte nam day ak na sa xel day sëb cër na lay day faw ci yàlla nit kum xelam rëy itteem itam rëy faw cëram rëy giñ ko ci yàlla nit kum xelam tuut iteem itam tuut faaw cëram tuut giñ ko ci yàlla kon yitte lu ama am solo la yàlla nañu ko suñu borom tabaaraka wa taala def la noonu ci sëriñ bi meloon nag mag ñi itam noonu lañ ci meloon waa kër sëriñ bi ci lañ koy tàmbalee ak Cheikh sëriñ bi daf ko mas a yónnee oto boo xam ne Cheikh Ibrahima Fall moo ko jënd ci fukki fukki junne ak ñaar ci ngurdu yónnee ko sëriñ Tuubaa addee jox ko doomu ji wax sëñ Modou Mbenda ne ko boo demee nga laajtee nga jox ko ko ne ko na ko jox ne koy doxal fere ya ba ñëwee sëriñ bi daal di laaj fu mu jógee sëñ Modou Mbend ne ko sama baay Cheikh moo ma ko naa la ko jox nga ko ñu doxal fere yi sëriñ bi daal ne nañ ko yët Modou Moustapha nañ ko yët Modou Moustapha bañ koo yëtee si Cheikh laajte oto bi fu mu jógee sëñ Modou Mbend ne ko ah man de sama baay Cheikh Ibrahima ko jëndoon ne nañ ko yët sëñ Tuubaa sëñ bi na nañ la ko yet fekk sëñ Modou Mbenn ba may dem sëñ bi da ko booleeg sëñ Aliou Sey Cheikh Moustapha daal di laaj oto bi lu mu jaroon sëñ Modou Mbenn na ko Cheikh bi daan ko jëndee fukki junneeg ñaar ci ngurdu Cheikh Moustapha daal di làmb gaalam génn ci fukki junneeg ñaar jox ko sëñ Aliou Sey ne ko boo demee ne ku baax ki maa ko tuubee ndax dara warta jógee ci moom ñu koy delloo waaye lépp lu muy joxeeti lépp lu muy joxati ak njabootam na ko jox sëñ Fallou ak i lépp lu muy joxati mbokkam na ko jox cerno ak rakam te man mu def ma ab saadex kon ñoom foofu la ñu nekkoon sëriñ Fall tam gis nga nam jaayee ak njureelam jëndee ko ak taalibe jaayanteeg sëriñ Touba ba ko sëriñ Touba la ko ci sëriñ Touba waree fayee it mu joxaat ko ko àddee ne ko def ma ab saadex am na fu mu waxee ne sax duma taalibe bu bëgg a doon baayam duma doom ji bëgg doon doon baayam duma taalibe bu bëgg a seex daal na duma dara ci sëñ bi naa nekk ci biiram rek duma dara ñu ne ko ab taalibe ab taalibe nga mu ne du ma taalibe sax du ma dara naa nekk ci sëñ bi rek loolu mooy alfanaa o kon ñoom dañoo jeexoon ci sëñ Tuubaa sëriñ Dame Abdourahmane Lo am na lettre bu ko sëñ Tuubaa bindoon ba mu nekkee Gabon wax daf caa bind ne ayyuhal muridu saadiq allazi fanaa fii ka fanaa i fillah yow murid saadiq nga xam ne ni jeex nga ci man ni ma jeexee ci yàlla kon ñoom ñëpp dañoo jeexoon ci sëriñ Tuubaa ndax seen yitte ju kawe moo tax ñu am ca lañ ca am kon nañ leen roy ci loolu yi yàlla nañu suñu borom defal tawfiq ñu roy leen